bonsoir chers amis téléspectateurs bienvenue dans votre émission Safi Sport Nous sommes Daryl dalal bu baax émission sportive bi nga chaque quinzaine lay am ci Safina TV Nous sommes ñu ngi ci HLM Grand Yoff li ñu la moo ñu fi indi mooy euh, fekk ci maître c'est un c'est quelqu'un bi nga il fait euh, du karaté depuis 35 ans muy gérer ay boy gère ay milliers de jeunes fii nii ci gox bi euh, duñ ko sans plus dañ koy ñëw présenté ko léegi euh, maître ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay salaamaaleykum wa rahmatullah wa comme nous avons ko introduction maître euh, Bey, dafa depuis les années 90. pour être plus précis depuis 1995, le a commencé à enseigner la pratique de la discipline du karaté mais quand il a commencé euh, dugg discipline bi Bob mo ngi nek ndaw mo ngi ci la commencé intéressé wu ci li nga xamante ni mooy discipline karaté maître suñu premier question mooy lan moo la dugal ci karaté pourquoi cette passion ci discipline bi di karaté. waaw euh, ñu ngi leen di sant bu baax te di leen di euh, remercier ci seet bi ngeen ñu seet si fii euh, fii ci ci école bi ci ci salle bi dojo bi. karaté nag dafay loo xam ne passion bu yàgg la euh, passion la jaar-jaar bu ñu suñu borom yoon bi ñu suñu borom tracé la woon maa ngi koy doog a xam mm-hmm. ndaxte ba ñu nekkee gone doon gone yu ndaw dañu bëggoon karaté waaye man nag ba mu nekkee gone dama yëngu woon lool bëriwoon fit lool bu ñuy football sax bu xeex bi amee man maay <laughs> dem maa koy jël te nag sama doole bëriwul woon man ma jékki-jékki daal di ne man daal eh, am naa fit lool te eh, daal eh, doole gi topp ci nga xaaral ma fekk bëggoon naa karate nag parce fi ñu dëkkoon waa waagu ñaay dafa am benn saal du dorama sunu ginnaaw kër ma nga doon seetaan yàlla def ma bëggoon karate nag may dem di seetaan yi yooyu daal ba ma bëgg ko nekk ci ba ni may demee ba mu bëggee mën naa gënoon teel sax waaye sama sama waajur mu ne ñëwee na ko dama bëgg nga inscrire ma karaté mu ne ma man de sama doole bëriwut te man dama retraité kon fay bi dana ma dana ma xaw a diis ma demee nag ba nekk élève am ay carte transport bu njëkk ba dañu amoon carte transport ma ci doon am possibilité am ñaar benn ba laa doon jaay di fay <laughs> sama sama sama sama entraînement yi alors loolu daal la mbir jaare daal ba ba tey ji ay yeneen bunt yu bari bari feeñ kon bu ma la bu baax dafa mel da am foo tolloon ci àdduna nga am nga soxla loo xamante ni dina mën a dimbali pour ngay aar sa bopp moo tax nga ne mhm. xaaral ma dugg ci karaté. voilà surtout surtout loolu la bu njëkk ba nag bon gis-gis boobu la ñu amoon ndax ja jàngum xeex lañ ko téye woon rek mën aar sa bopp defaan sa bopp waaye bañ ci demee ay fan yi néew rek laa xam ne mbir mi romb na foofu waaw mbir mi loolu moom daanaka sax euh, euh, dañ ko ciy wax rek waaye daanaka amu ci sax waaw daanaka amu ci ndax euh, toujours rek violence bi ci yow lay ne. violence bi ci yow la ne yaa koy incarné ci sa biir rek bis rek mu feeñ mu feeñ mu feeñ ci yow donte boo jegee nag foofu nag daanaka adversaire bi ngay wër nii di koy dóor sax ci jaww ji daanaka doo ko mës a gis daanaka ñun ay lu mat yàgg na lool ñu ngi koy def waaye mus ci gis adversaire bi kon l'adversaire dañ koy imagine rek kon doguma la maître mais karaté am na leneen lu làmboo ci biir lu dul rek taxaw xeex wala taxaw defaan sa bopp. waaw ah bari na lool li mu làmboo ci biir baatin ba sax moo ëpp fuuf waaye nit ñi lañ ci xam ci biti mooy la ñu teg seen bët rek waaye la mu làmboo ci biir li ci bari sax dafa tàmbali réer tàmbaliwul réer sax waaye dafa réer ba pare waaw. muy lan muy waaw li ci biir mooy euh, cosaan la cosaan la mooy euh, zulkëf li këpp lii lañ doon wax waaye boo koy xoolee sax ah, zul xaranayn la. zul xaranayn waaw moom mm-hmm. nag Buda la. Mm-hmm. nit ñi dañu ko jaawale tur boobu moom dañ koy faral di dégg lu bëri moom mooy Buda waaye Buda la nit ñi gën a xam ci tuur ah, beneen tur bi waaye ci alxuraan zul xaranayn la man sax yoon boobu laa doon topp di koy seet. ndax dama amoon suñu benn xarit maître la woon Pape Ibra Fall euh, ancien karaté yi xam nañ karatéka yi xam nañ ko euh, ñu waxtaan bis mu ne ma zul këf zul këf lil moom lay jàppoon na moom la mais man ba ma demee ci alxuraan ci laa doog gis ne zul xare nañ la alors mu ne ma ci la jaar bi yegg yegg ci yàlla donc euh, daanaka moo tax ma ne la lu mu làmbool te te boobu moom du karaté sax mais c'est l'ancien du kung fu xam nga discipline yëpp ci kung fu la ñu génnee muy karaté di judo waaye ay discipline boo gis rek ci kung fu la judo mais Zul Këfli moom Zul neen ci boppam moom moo ko créé woon mais loolu c'était beaucoup plus euh, spirituel jaamoo ci yàlla la woon looloo ko taxoon jóg moo tax ba léegi euh, ferñeent yooyu da cee des boo koy def da nga tàmbale jub da nga tàmbale jubal da nga tàmbali boo gëmul woon yàlla nga commencé di julleeg yu mel noonu waaye ferñeent yooyu daal moo ci moo ci moo ci des ci biti waaye eh, bu la yàlla dimbalee nga gis ku la ci mën a dimbale da nga eh, gis carrément li ci biir li ci biir moo gën a neex que li ci biti. rapport bi rapport bi ban rapport la le karaté am ak spiritualité parce que c'est vrai que wax nga ko mais da nga xaw a raay tuuti ci kaw mais pour gën a xamal téléspectateurs yi ban rapport dëgg-dëgg la karaté am ak spiritualité est-ce que am nga ci exemple wala benn anecdote boo ñu mën a jox pour ñu nit ñi gën a xam. waaw exemple bi may joxe euh, li ñuy wax bu bay bay sa weer euh, euh, wewu tànk. Euh, sama sama sama sama bopp man laay laay laay laa koy laa koy laa koy seete man ndax euh, ci yoonu karaté bi ci laa jaar ba yàlla dimbali ma ba ma mën a egg ci moom waaw xam ne nag loolu nag moom mbirum tasawuf la waaw mbirum beneen xam-xam la xam-xamu tasawuf ndax xam-xam boobu ma jiitu yëpp waaw xam-xamu tasawuf la waaye est-ce que tey jamono dañ jàpp ne dañ ko yokk ci diine gi fekk ne euh, moom mooy diine waaye dafa am diine baatin zaahir ak baatin zaahir zaahir bi nag moom mooy ni ñuy jullee wooree naka que mooy ki pratique bi mooy li feeñ waaye li nëbbu nga xam ne loolu ci xol la jëm ci ruu la jëm mooy xam-xam boobu xam-xam boobu nag ku nekk ak na nga ko doon waxee loolu nag mooy islaam waaye zul këfri ci boppam zul xoree neen ci boppam moom mooy Buddha ci boppam moom dafa ñëw jaar ci kii bi ci aar marché yi ci la jaar bay yëg leneen lu nekk ci moom ndaxte euh, rapport bi lu la koy njëkk wan xam naa ñu dugg ci rek parce que yàgg may ni da jaar da nga ci jaar ci kaw. Ah, effectivement ah. parce que lu xaw a xóot la moo tax ma bëggoon jaar ci kaw. waaw ah, man dama xaw a duñ kumpane moo tax foog ma laaj la pour ñu gën a xam lan moo nekk si <laughs> naa am tuuti aperçu. waaw te dama sob waaw lay laaj loolu. waaw dugg ci rapport moom mooy moom mooy loolu. ndax tey ji dañoo jàpp ne xam nga tey ji boo nee tasawuf rek fii dañu jàpp ne tarixa yi la te tarixa da cee mujj a jot. tarixa moom da ca mujj jot moom waaw ndax li fi yi dafa yàgg la waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ca ca dundam sax feeñ na ci ndax la njëkk a wàcce ba avant ñuy égir gàddaay bi boobu lépp moom tasawuf la woon ndax boobu julli amu julleegul waaye donte rañaan na waaye julli waa jëfaguñ ko koor mi ngi wàccee màkk nata asaka ak yëpp ah, ba ñu mi ngi wàccee fële ki ko ki ko Médine yooyu yëpp Médine la wàcce waaye fukki at ak ñett yi mu nekkoon màkk nag di woote ba saaba yëpp wuyu ko ci li mu ne newoon ban loolu xam-xam la waaye loolu nag moom ah su sóobu sóobu sóobu moo koy may nit waaye ku ci sóobuwut moom mën nga ko gëm rek wala nga ñàkk ko gëm rek mooy waral ñenn ñi di koy waaye ñàkk soobu moo tax ñi koy ñi ñi ko ñi ci soobu moom xam nañ ko moom waaw ñi ci soobu moom xam nañ ko ñëpp ci saahir lañ jóge daal ci dem gis nga suul suul xare nañ boobu ñuy wax noonu moom da cee jaar li wane da cee jaar ba yegg parce que ba ma ko déggee dama ko wër ñeenti at wër ñeenti at boobu ci saahir laa ne woon ba sama ñeent fa fukkeelu at boobu ma fekk ne takk naa quatrième daan ma dem ba takk quatrième dan nag bon ci laa yëg yëg yi boobu saa yi mu ñëwee sax fii laa doon toog bëgg a di entraîner sama élève rek laa jox cours waaye yëg ni lii am na leneen li ci biir waaye di koy wër nag wër ba yàlla dimbali ma rek ma gis góor yàlla bu ma mën a dimbali ba mu ba mu dimbali ma tey ba ma yegg ci moom mooy tey boo koy seetee sànq euh, ci kataay ñi def nii mooy yow booy def art martial dañ lay ne da ngay xam ne am na ku lay song ca kanam am ki la song ci ginnaaw sa sa càmmooñ ak sa ndeyjoor xam nga kataay rek feeñal na ko yaa ay adversaire yaa éliminer yaa éliminer da nga dem ba certain niveau da nga xam ne adversaire yi nekkatul ñeent kenn la yow ak kenn boobu tamit tolluwaay la da nga dem ba éliminer adversaire boobu ci liggéey ak si sa xel waaye élimination du physique mais c'est eh, c'est mental euh, spirituel <laughs> c'est mental mm. Mm. la yëg-yëg yi nga amoon ba jàpp ne ay adversaire ngi fi danga dem ba xam ne éliminé nga leen mooy jóge nañ fi li fi jógee kii danga dem ba kenn fi jóge boobu nag mooy tollook ay compétition parce que yaa ngi waajal kenn yaa ngi gis benn adversaire di koy wër di koy wër mais da dem ba jële fi kooku jëlee fi kooku boobu nag si nombre de de ki ko pratique la da ngay dem ba yow yow la yow la boobu nag fa la coow li ne yow la boobu ñaar la da ngay jàll ubbi nga dëpp jàll rek ubbi nga dëpp bañ koy waxee ya, mooy siraatal mustaqiim yegg iya, rek mbaa <laughs> waaw ñu <laughs> wax buum gi. dëgg la gis nga ko. moom kay moom. Eh, jàll rek ma ma ma suux boobu nag yow du fii nga koy wutee ci tabe bi kooku da ngay wuti keneen koo xam ne xëy na sax tànk mënu ko yëkkati waaye li yëkk li li war a yëkkati ko ci moom moom foofu lay jaar ak yow eh, su boobaa nag li fi jëlee ñii ñeenti adversaires yi moo li fi jëlee yow c'est l'ultime combat qui reste le dernier combat. kooku yow la ñu bari na dañu ne jaad jaadul ki nafsi la sa combat bopp la yow ak jaad nafsi sa bopp ak yooyu gis nga bopp la fa yàlla dimbaliwul da ngay delluwaat ci adversaire bële moo tax mën a jàll ou bien delluwaat au point de départ nga fa mën a nekk léegi nag adversaire da ngay moo ñu bari bu ba ku wëlbatiku waat nag delluwaat ci ca la ñu newoon waa adversaire physique bi donte nekkatul 4 mais c'est c'est de yow la ak keneen da ngay delluwaat ci saayir ba fekk na da nga war a delluwaat ci sa bir sa biir sa bir la yegguwaay bi sa biir la boo fi jëlee ki ki fi rek ki

man euh, daanaka léegi ci ñoom rek xalaa yëngu sax waaw ndaxte euh, jot bi ngay def ci xale yi mooy ëpp ndax xale boo ko yoree ñi ñii ñi ci am ñoo xam ne def nañ fa fukki at daanaka yàgg nañ fa lool waaye ba ñu tuut tànk gën a tuut tànk ay tuut tànk lañu waaye ba ñu gënee nekk ndaw lañu fi lañ fi ne danga am temps wu defar li ngay def ci xale mag jamono doo am temps bi parce que jot bi moom sax boppam boppam amu amu ko am nañ fi mag parce que salle bi fi dafa représente lu bari ñu bari jaar nañ fi sëy sax takk nañ ko fi ay nit fii la ñu ba doon xarit sàmb mi xam na ci lu bari te ba tey ba tuddante ay doom loolu ma tax ma fi entraîné ay mag waaye yeneen salle yi mujj ubbi ay tout rek ndax la yar la yar la mooy boo ñëwee da ngay fekk ku ñëw des fois sax nit indil la doomam ne la man de hésité nas, sax ba tey ndax ki mu lay indil dafa yëngu lool ma ne ko mi soxla waaye gis nga bu ñëwee rek moom bu ñëwee bu fekkee gone yi ni ñu toogee gis ñàkk fi jiitu lool seen toogaay seen jëjëfin moom ci boppam yow doo ko wax dara moom moom changé xale ñu am xel lañu et ñun dañuy jum ci xale yi ñu dañ ci juum jum bu mettee métti métti juum bi métti métti bi man maa ngi fàttaliku ba ñu doon def formation euh, pour nekk euh, am sunu diplôme d'entraîneur euh, kii dañu doon wax ne da ngeen jël xale à partir de 6 ans. man doxal naa loolu lu lu yàgg ah <laughs> doxal naa ko lu mat ay quatre ans cinq ans yooyu xaw ma six ans six ans rek laa doon jël parce que bon li ma li ma jàngoon rek laa doon euh, appliqué mais gis nga loolu teguñu ko ci benn fait euh, scientifique dañu ñëw rek nii wax kii rek jàpp jàpp rek ci jàpp lañ ko teg waaye teguñu ko ci ci recherche teguñu ko ci dara te ça repose sur rien tout eh, may may tàmbali loolu. am ku fi inscrire ñaari doomam léegi nag kenn ki nag samedi bi des kër ga kooku da doon jooy rek moom nangu loon toog ah, waa juróom ne ma léegi dimbali ma ki ñu defal kii mën a mu ñëw comme sax mi ànd ak xale yi rek ma ne ko ah loolu kay amul problème ba mu ñëwee defal loolu xale yi ne ma ah léegi da nga jël xale yi tuuti ay trois ans gi ma ne ah, kii day lii la. Euh, <laughs> kii ay buy dem entraînement magam bi ñu ñëw day jooy rek ñu ne ma man tamit ma am ci déjà metu sax weer ma am ci fukk mooy moo jur cours bi bi jiitu cours bi ma dem ba ci biir gis ne ñooñu mënu ma leen booleeg euh, ñu xaw a mag ñi ma defa leen benn cours à part après macha allah mais après ci tàmbali bi départ rek laa gis ne juum nañu ndax gis nga xale yi tuuti yi ñoom du ñu du ñu jàngee nit ñuy jàngee xam ne da nga leen di jàngal mouvement fii la jógee ñu koy répété déedéet ñoom intelligence visuelle la ñu am dañuy gis rek mën et loolu benn intelligence la boo xam ne ñun mag ñi amatuñ ko dañ ko perte mais xale yi moom moom ñoom seen dund la alors foofu nag nga mën a jaar wan leen li nga leen di wan. ñoom bu ñu xoolee dafa mel ne alxuraan rek am na ci xale yoo xam ne lañ leen di jàngaloon loolu saar yeen di jàngal duñ ko mokkal waaye bu ñu tare ci wet bi moom dañ koy gaaw a <laughs> mémoriser waaw ñoom bi ñu tànnal seen bopp la parce que booy bi sëriñ daara bi moo ko tàmm <laughs> mais moom bi mu tàmmal boppam mooy <laughs> bi moromam bi di tari a yomb mooy gën a yomb ci moom waaw mooy gën a waaye bi ñu ko tànnal moom day day jafe ci moom beneen façon beneen niveau d' intelligence la boo xam ne ñu dañuy yaakaar ne seen intelligence yeggul foofu et mais malheureusement euh, li tax xam naa ñoo ñu def loolu indi woon loolu am na sax ba léegi ñi koy doge yi koy pratiquer gis naa ko am ñoo xam ne ba léegi ñu ngi koy pratiquer mais man damay jël sax trois ans même bu xale deux ans bu dëgëree sax mën a wax mën a kii rek dama koy jël waaw parce que mooy li may wax rek loo ko lu gis ñi def ko daf koy def maintenant naka la koy defee nag parce que boobu ci bopp bi leer na lépp leer na xam ne lu muy def lépp bu dee gërën baraay la xam ne fii lañ koy armé wàcc mais motricité yi pareegul am na élément yoo xam ne installé gul ci moom mënagu ko def mu génn mais gis nga bu xale boobu boo ko fi ba bàyyee ay at da ngay gis ne ñoom seen karate day set gis nga bu demee ba ba motricité yi ñëwandoo gis nga doo ko wan dara doo corriger dara lépp day set. da fekk na setoon na ci ci xelam ba pare mouvement yi moo doon ndax dama ma koy def ak yooyu um, beneen monde la da nga ci jang lu bare bare bare bare c'est c'est une passion comme ni nga koy waxee et et c'est c'est formidable parce que yar nañ ci ñoo xam tay borom kër lañu sen dom lañu indi sax après <laughs> est ce que te bañeen doon yor yore timit ñom ay xalé tutil lañu donc leur loolu est santé. ci yalla mom Donc dañu renvoyer juste sur une question donc à savoir que donc dafa a pas d'aptitude particulière à avoir pour faire du karaté donc at faire moment, am tu peux faire du karaté ngay peux ngay jigen, nga nga am taille nga ñak taille donc euh, tout le monde est le bienvenu dans la discipline du karaté. xam-xam la xam-xam mom amul ndaw amul mm. parce que du du physique bi rek. physique bi boo koy seet lu ndaw la ci ñu bari nag dañuy jàpp ne mbirum gone la déedéet. am naa fi koo xam ne mi ngi takk ceinture noire boo mu amee cinquante deux ans cinquante deux ans la am ceinture noire am muy dem bi paase ci ceinture noire moom moo fa gënoon mag waaye da daf ko paase dafa yéeg ci tapis bi def lii niñ liñ ko war a def yëpp programme yëpp mu def. donc amul age man am naa fi ay mag am naa fi ay ndaw amul même boo amee jafe-jafe ci motricité wala ci xel mën nga ko mën nga ko parce que karaté du mouvement bi fii rek la war a jóge wàcc déedéet am na koo xam ne yaramam ak xelam mënu ko jëlee ci kaw wàcce ko waaye moom ci biir xam ne ni muy demee waaye yàlla defar na ko yoo xam ne ay feebar yoo xam ne mënul mënul loolu waaye dana ko bëgg bëgg bi mu koy bëgg di sol kimono di ñëw ak yar gi muy def ci moom ak tey ak euh, da may fit waaw da lay may fit ba nga xam ne tiit day dañ ci yow xam nga tiit tiit bu dañee ci yow rek yu bari doot la mën a doot la mën a kii du la arrivé parce que ci lu bari li arrivé nit tiit ko indi waaw da gis ku ñuy agressé waaye tiit moo koy def. mais tiit gi mu tiit loolu moo koy def waaye yenn saa agresseur da nga ñëw mu dajeek yow nar la agressé xool la am na aptitude booy am yoo xam ne yow mii def karaté sax doo doo ko da nga koy fàtte waaye ñoom dañ koy yëg moo tax c'est rare nga gis kuy def art ñu ñu kii ko donte solul ki mun a ci mbedd mi di dox mais c'est très rare nga gis euh, ki def art martial ñu agressé ko waaye loolu lan moo koy def tiit googu dañ ci moom waaw ak euh, posé bi mu dal moo koy. moy tax loolu. waaw ah, di len euh, rappeler juste que ñu ngi dalal euh, maître bey di sensey fini ci école pédagogue bu Grand Yoff donc comme ni ñu ko waxee ah, donc waxtaan amna solo lol fi sen émission euh, Safi Sport man franchement commencé na ci jàng yu bari donc c'est vraiment vrai c'est vraiment très passionnant j'en perds même mes mots ndaxte donc on pensait on pensait juste que karaté dafa nek lo xamanteni ni c'est physique et juste seulement lo xamanteni ça te permet de te défendre mais comme l'a si bien dit maître dafa nek lo xamanteni ni nii permettre nga jàll benen étape te day yokk sa sa ce spiritualité donc maître est-ce que yéen a am aussi ay compétition de temps à autre pour me juger euh, niveau xalé yi. waaw euh, man ci sama sama euh, gis-gis karaté xam nga doon nañ ci dem. dem compétition yeeg di dem di dem di dem mais à un certain moment de la vie fu nga taxawaat xool ndax la ngay def ak sa gis-gis mooy gis nga man karaté bi may def léegi <laughs> gis nga ko <laughs> gis nga ko ce n'est plus le karaté physique bi nga xam sama ndaw yëpp moom laa doon def mais beneen euh, taxawaay la taxawaay boobu souvent bu dul woon émission bi sax moom duma ci faral di wax ndaxte am na may nattangoo yoo xam ne ci la ñu ne ba pare tamit dem lañ ci félicité ndaxte ñoom ñoo téye karaté bi te yàlla dafa def ñu ay borom xam-xam yu bare bare bare bare Sénégal on a de grands maîtres et malheureusement nit ñi xamuñu ko mais euh, de très très très grands maîtres des maîtres de valeur ñi ci bari ñu ngi génn àdduna benn par benn et la ñu amoon ci xam-xam daanaka dañ koy yóbbaale mooy parce que binduñu ñun amuñu culture bind suñuy xam-xam ni ñuy passé ay danit ak ni ñuy passé ay ceinture c'est presque physique ba nga xam ne euh, yu bari la nga xam. daanaka say taalibe rek ñoo koy xam say say doge rek ñoo koy xam mais lañ ci waroon jariña jariña jariñoo bàyyi ko fi ngir ñii ñëw après xam ne ay ay maître ñi ngi fi woon malheureusement buñ doon bind karaté par exemple cinquième date nga war ko passé ñu ne la mémoire nga war a def euh, Euh, dana am xam-xam bari formaliser daal formaliser ko mu bañ a nekk ay test yoo xam ne physique rek nga xam ne coup de pied coup de point kata yooyu ngay def nga xam ne laaj nañ la ko premier deuxième troisième quatrième ba cinquième dat ñu la koy laajaat day am benn taxawaay boo xam ne yow dootul ci mën a wéy su fekkee da ngay dox ci beneen beneen beneen euh, beneen gis-gis. kon su ma la déggee beneen façon jàngalin yow bu fekkoon mooy sa sa sa sa se vouloir da ngay instauré beneen façon bu ñuy jàngalee karaté ak nu ñu koy gisee daal. waaw moom ci ci laa sax parce que loolu mooy indi euh, compétition yi danay am fii mais interne parce que bëgguma euh, compétition c'est euh, toujours mooy adversaire boobu may kii adversaire bi nekk fi sa kanam boo fa taxawee rek jàll kat a jafe beneen jàll bee tax moo tax compétition sawaruma ci lol lol lol lol parce que toujours tu compétis avec quelqu'un amna yow la ak kenn yow la ak kenn boobu boo ci doxee doxee doxee doxee doxee dana da nga dem ba la nga benen yoon bobu mën mën nga ci réer lu jafe nak limay wax ni hmm. c'est naqari ah, neexul ah, comprendre hmm. c'est un peu subtil quand même voilà benen wa benen gis-gis la boo xam ne man sama sama sama jaar-jaar la moo tax ba mu fa jaaree yëg ne kat jàll am na jàll mën naa am comme jàll mën naa am la nga xam ne day contraindre nit mu jàll dama ci xaw a wàññi dama ko bàyyi nag dama ci xaw a wàññi moo indi sama taxawaay tuuti. ci compétition ci compétition yeeg yooyu gis-gis ba ma ci amoon bu njëkk ba ak gis-gis bi ma am léegi du woon benn parce que karaté c'est c'est euh, mooy valeur yi. alal yéeg yu mel yu mel nag yoo xam ne mooy wax lu baax jëf lu baax te sax ci sa kàddu warta ñaaw sa jëf warta ñaaw waaye bu ñu demee ba maître day génn kàddu muy yenn kii dañuy dem ba mel ne ak ay entraîneur de football yeeg basketteur yeeg yooyu te ñoom it sax am na si ñoo xam ne it duñ ko def xam nga maître bu ñu la ko woowee rek am na loo symboliser

donc kon war nañu delluwaat ci ci cosaan bi maanaam li taxoon dëgg-dëgg art martial juddu war nañ ci delluwaat bu baax a baax. cislaay bi cislaay bi. cislaay bi bis ku ko yëg rek da nga xam ne doo ko jëndee leneen boo ko yëgee rek sant yàlla waaw moo tax ma ne ki feeñ bu feeñee rek li war a nëbbu yépp xëy nëbbu. waaye ki ki war a feeñ moom boo toggee ci séesam da lay bàyyi ak sées ba su boobaa nag dangay ngay rek ci biti wëlbatikuwaat ci biti boobu waaye nag mbir moomu moo tax euh, ba ka ba ka Zulxa xare ne nag jàll gi mu jàll moo ko dimbali moo tax tey religion bu religion mu taxaw buddi si tey amna ci da ngay gis dañ koy dund dañuy dund tasawuf la la wax. té doguma la ils sont éduqués sont des gens calmes éduqués et tout comme nous, ñu koy ah, C'est vrai que ce n'est pas du sport mais on on est dans une société une société trop Une société bu yëngu-yëngu ay violence par ci par là donc si on a tey maître il nous parle de de de de de la non violence de de de une façon de se ressaisir C'est quelque chose boo xamante c'est extraordinaire maître. violence. feebar la waay. feebar maître nous avons fait. La violence bi bari mais faible est bari. xol yi ñoo feebar parce que xol su feebaree rek ku nekk da ngay yow moom nga yéen a yéen woo jàmm wutuloo da danga koy yow daal violence rek am na ñi nga xam ne jàpp nañu foog ñu tiital nit ñi foog ñu def violence nit ñi doog leen dégg xam nga xoola loolu te lan la ñuy wax bu dee jullit la salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum waaye kooku loolu jeex na dafa war kaw suuf ba nga ne ñaane leen nit ki jàmm rek violence moom. te daa jeex daa jeex boo gisee ma ne bouddhiste dañuy dund euh, ay sufiyanke lañu parce que dañuy dund dañuy dëddu àdduna parce que yoonu tasawuf lan la dëddu àdduna nga dégmal sa borom rek àdduna boobu nag dafa yombut du dem dëkk daw nit ña dëkk ci àll ba waaye da dëkk ci nit ñi dem ci nit ñi parce que xam-xam lépp ci nit ñi la nekk boo dawee nit ñi foo ko jëlee de dëddu àdduna boo ko teg dëddu nit nit ñi ndax lépp xam-xamam lépp yàlla njëriñam yi muy def yëpp ci nit la def donc foog nga dem ci nit ña waaye nag wàcc wàcc woyof toroxlu loolu rek mooy mën a dimbali nit waaye nit saa gisee bu boppam rek day rëy day rëy feebar la donc kon ni ngeen ko déggee donc mun nañ jàpp ne loolu yëpp karaté da koy dindi ci nit da koy dindi ci nit ah clairement. karaté bu njëkk ba. bu njëkk ba authentique bi. waaw authentique. Hmm. ay karaté léegi moom daanaka. Hmm. gis nga <laughs> sport la rek. <laughs> gis nga hmm. mais est-ce que tey ji am ngeen ñoo xamante ne ni yéen leen di yéen yéen euh, on peut dire que yéen yéen leni di jox euh, gis-gis bobu vision bobu d'un karaté euh, authentique pour ñoom ñu mun ko perpétuer à l'avenir Ah, am naa ci waaye bari ko ndax ñi la indi seeni doom loolu yoon boobu taxuñu indi seen doom ñoom karate bi yëngatu beeg yooyu ak yar gi saayir boobu daal moo leen tax a jóg waaye da ci yar nit ba mu doon kilifa bis ñëw mu laaj la ko waaw boobu man nag moom mooy tànn waaye ka nga xam ne ay gone lañ yooyu moom doo ci mën a doxoo ñoom xatu mbirum gone sax waaye ñu borom xel la ni day dem ba tollu foofu nga xam ne jàng na lu mu war a xam na lu mu xam na ba nga ñi mu gis yi nga koy wax mu gën laa jàng sax yow mii la nga koy wax mi ngi ci téere ba muy gën di feddali moom ay li mu gëm ndax karité da fum la fekk ya xam ban diine nga nekk musulman nga chrétien nga dalay gën a ca la nga ne ndax lan la yoon boo xam ne non violence dëgg la defar nit la ana diine bu nekkul foofu waaw diine yëpp foofu la ñu ne man moo tax euh, ma xawoon def tuuti retrait ci beneen euh, yenn organisation yeeg yooyu ndax it euh, dama nekk ci soobu yoon boobu waaw <laughs> soobu yoon boobu nag dootoo mën a doxee na nga daan waxee waaw dootoo mën a doxee na nga daan waxee waaye yoon boobu waaye yoon boobu ñun ci la ñuy jaar ci yoon boobu la ñuy jaar waaye nag daañ ci waxtaan yenn saa yi benn benn ñëw ya, nga nga nga nga dimbale leen ci waaye nag du lu ñuy woote ci karaté bi du ci root ki lu ñu dund la waaye nag ñun yëgewuñ ko ci yëg nañu rek ne suul këf li noonu nangam yegg na ci yàlla foofu lañ ci yem mooy fi mu la wax dangay ngay karate bi fii foofu rek nga mën a yem moo na doo jàll waaye nag boo dem ba yëkku nag dafit jéego rek wuti ko waaye nag da génn sa saal bi waaye loolu nag xam nga loolu kon <laughs> newatul fii wala ban maître boo xam ne yegg na fa bon waaw. waaw. ko dem na ci ba ceinture

ndax euh, fu si bi nga xam ne moom moo réforme karaté bi kan bi ñu def bi si Sénégal moom mosul nangu compétition ba mu parce que xamoon ne euh, compétition bi nu muy dindee ay yenn yenn yoo xam ne mais compétition bi tamit moo tax karaté ni ñu xam ko aussi ah mu gën a law ak yooyu donte mais ñoom si moom jamonoom moom moom daf ko mës a bañ donte am na ci ay temps am yeneen i maîtres yoo xam ne ñoom doon nañ ko def alhamdulilah. am na ci taawam yeneen i yoo xam ne doon nañ ko def moom bu nu muy génne àdduna amul deful compétition te ay élèves am daaw ñu ko def ba tey ji am na discipline yoo xam ne lu mel ne ay aikido amul compétition ñoom dañoo teewaat originalité ba mooy la ma daan wax sànq rek mooy sa eh, sama la ma daan wax ni kii bi ko fondement bi ci cislaay bi ah am na am na fu mu xegu du lu ma xalaat rek xëy rek man ma xalaat ko indi ko teg ko déedéet amatuñu luñ ci luñ ci inventé lii karaté luñ ci war a inventé yëpp mag ñi fi daan jaar ak yooyu inventé nañ te dàq ko foofu waaw te toll sax ñoom fa fañ ca hmm. donte dañuy dox rek di am suñu gis-gis di ciy dox dem ba ci biir nag gis nag ñoom fañ ci tegoon seen tànk lañ ci doon bañ la ngay bañ tey ñoom lañ ci doon bañ hmm. donte jamonoy bokkut mm-hmm. waaye nag dafa am leneen ci biir leneen lu ci biir loolu moo taxoon ñoom ñu doon bëgg bañ ko dugal ci dugal ci ay yeneen yi mm-hmm. waaye du du lu bon parce que man def naa ko ba tàyyi waaw def naa ko ba tàyyi mm-hmm. waaw def naa ko ba tàyyi sa sama ndaw waaw samay élèves yi tamit def nañ ko ba tàyyi am naa ci ay champion nekk ñoo xam ne nekk nañ fi nekk champion du Sénégal ak kataay yu mel noonu dem si for nañ ci ay élèves yu bari ñaari eh, ceinture mo amone blanche ak noir ño am ño amone ño amone mu ñëk ño mm-hmm. amone mm-hmm. waye karaté bi légui danaka yok nañ ko ñu dem ba mu nek set ñu demat ba dugalat ci yenen sax ay ceinture intermédiaire blanche jaune jaune orange tout ça alors que blanche la won ak noir blanche la ak noir boy tambali ak blanche ngay tatàmbale nga nekk ca nekk ca nekk ca ñu lay corriger di lay defar di lay defar di lay defar dañ lay jàngal lii ba pare yar la ngay jàngal pare yaa yar la yar googu nag mooy booleeg loolu boo demee nag ba yëg yar gañ lay def ci yow ak ñu xool physique bi ak di defin yéeg maîtrise du corps de l'esprit tout ça yëpp ndax yaa ngi koy def parce que mouvement yi moom moo koy la nga nekk ci biir lu koy historiser mooy mouvement yi kata yeeg eh, coup eh, de pied yeeg yooyu nga xool nañ ko defee moom mooy day wane si biir ba nga dem ba mat nga doog a takk ceinture noire waaye léegi nag ceinture noire bi da nga koy passé ñun dañ ko passé da nga koy passé premier dan da nga koy passé deuxième dan koy troisième koy quatrième ba cinquième sax niveau fan la yëpp niveau niveau dan fan la bon fii Senegal ki fi sori euh, met ñun ñu nees la ba mu koy mujj nemmeeku septième bi daan la woon defe naa defe naa romb na ko bu nekkul bi huitième mais yooyu c'est ay ay ay ay service rendu dootul nekk ci ñu lay taxawal di lay laaj ay technique des comme ça déedéet mais taxawaay bi la ak yàgg bi nga ciy yàgg ak nekk bi nga ciy nekk ànd ak bi nga ànd ak nit ñi moo indi yooyu mu yegg ay service rendu rek la hmm. ay dimension la nga ànd ak moom bu njëkk bu sax ay quatrième dan koy daaw ko passé même troisième dan sax daañu ko woon mais ñun ñun dañ ko dañ passé yëpp ñun dañ ko passé quatrième dañ ko waaw cinquième dan bi nag ba mu demee ba yëg yëg yooyu ci laa ne daal li ma ca jot am ci doy na sëkk deux mille trois laa nekk quatrième dan deux mille deux laa waroon passé ceinture noire cinquième dan boobu ba ma bindee boobu bindoon naa nag parce que boobu sama date jot na ma bind léegi bi léegi bi yóbbu ko fédération mais se trouvé que at boobu yàlla dimbali ma <laughs> ba amut yàlla dafa ma dimbali xam naa <laughs> ma dimbali ba amut amut ñu ne ma benn candidat rek la am si senegal donc euh, bon après at bi ci topp defe naa organisé nañ ko waaye at bi dama jékki-jékki ne vraiment la ma doon wut ci karaté daal yàlla dimbali na ma ba mu am ko euh, quatrième dan bi c'est honorable donc euh, ma yëg dëggantaan ne daal euh, beneen bi cinquième dan bi daal naa ko def ci yoonu yoonu kii quoi diine daal la ci des la ca des ca ca ca ca ca kii quoi diine bi léegi ceinture noire boobu ñu doon wax léegi euh, lu tax ma ne la tasawuf la aqiqa la tasawuf la xam nga tey jii ñun bu ñuy wax ak tasawuf tey jii ñu bari dañu jàpp ne eh, da ngay jàng alxuraan ak yooyu fekk ne alxuraan bi eh, arab bi langue rek la suñu borom ba nga demee ba yëg ba jeex jeex la xam nga tey ba nga éliminer ñi jeex rek fi mën a des jeexal nga ñi ña la waroon sa bopp nag boo fi jëlee sa bopp mooy jeex jeex googu nag da lay yóbbu ci la la première la première ko création ba yàlla da amalul dara nga xam ne moom donc yàlla rek fi nekkoon weet ci wetam nga lu ko doon symboliser mooy la couleur noire mooy lëndëm fi amoon lëndëm googu mooy ceinture noire mooy jeex ba nga demee ba jeex mm. ba yëg ko am nga simbool bi ba yàlla amalee nag leer ga la leer gi mooy balance bi moo tax ca ca ca saayir bi zaayir bi ba ngay dox ci zaayir bi couleur balance rek la ay ba nga demee ba yëg ci biir nag ca nga delluwaat ci sa première kii mooy ba nga nekkee ru kese boobu nag lëndëm la waaye lëndëm la buy jur leer moo tax yàlla di wax ne euh, ci sootu nuur yàlla leer leer la mooy leeru asamaan ak suuf leer ci kaw leer ci la womatee jaami bañ yegg si ci moom waaye su boobaa nag jëmm jeex na bu fu jëmm jotee lu fi des ru ran leer ay da ngay dem nag ku la mën a ku la mën a su boobaa nag dootoo nekk kenn kenn ki nga nekkoon dañ gis sa bopp ci biti ñaar ngay doon ñaar ñi kenn la waaye kenn kooku rek moo fi nekkoon waaye ki ci biti moo yëgul woon ki ci biir su boobaa ki ci biir moo fi nekk di def xaw a xóot la effectivement <laughs> mm, mm. waaw gis ngeen ko ah mbokku téléspectateur Safina sport tey émission bi macha dafa xaw transversal parce que dugg ci ay euh, affaire du domaine yu bari machallah comme ñen ko gisee. j'espère que seulement que dañ leen servir bu baax baax à vouloir venir faire du karaté mais suñu dernière question moi. naka nga gisee karaté au Sénégal par rapport aux autres pays niveau karaté bi. waaw mais c'est mais c'est bien euh, Xalé, yi jambar lañu. entraîneur jàmbaar lañu maa ngi leen di féliciter aussi samay collègues yi nga xam ne ci bari ñoo defandoo xale ñoo foowandoo ñoo defandoo compétition ñoo bokon yore kii mbiri et ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ci téye sonn ci xam ne dara amu ci li bokkee seet rien xam ne bañ doon dem compétition sax bu ñuy arbitré doo am sax paas kenn du jox sax paas yaay ñëw passion dem ba tey am na ñoo xam ne ña nga ca dëttee ñooñu nag war nañ leen sargal bu baax baax baax baax ñooñu moom ñu sargal bu baax te te di leen di di leen di remercier parce que it ba léegi ña ca te euh, mais euh, <laughs> mais c'est la compétition on ne peut pas toujours être au, au sommet ba yegg ci kaw rek ci suuf suuf da ngay wàccaat donc mënuñu nekk toujours parce que nekkoon nañ fi premier africain xam nga di gagner lépp mais loolu ay temps rek la dañuy wàcc bu ñu wàccee dañuy liggéeyaat yéegaat rek nii rek la c'est en de si te ñu ngi liggéey. ah ñu ngi liggéey. Mm, mm. ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey ñi fi nekk ñu ngi ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey bonk donte je suis un peu en retrait mais ci information yi ci ma ci am donc maa ngi waxtaan ak euh, kilifa yi ci xar yenn saa téléphone ñu waxtaan donte du ma amoon ma jot lu di ci dem mais. limay gis euh, baxna donte amna ay wara corriger parce que mbirum rek l'œuvre humaine day am yi ñi ay yo xamne dañ koy jaar wara corriger wat mais sinon euh, le niveau xeyna nekkatu ñu fañu euh, il y a 10 ans il y a 15 ans 20 ans nga xamne on était champion coupe du monde xam nga jël fi ay jeunes yoo xam ne mosu ñu dugg ci hôtel nga jël leen yóbbu leen ci hôtel tukki mosu dugg avion ñu dem gagné champion du monde indi mais dëkk bu def loolu kenn mën wax ne karaté <laughs> baaxul kon ça veut dire que y des têtes ici maa ngi fàttaliku benn expert bu fi ambassade japon indi woon c' vers les années 86 90 yooyu bu tuddoon ki quoi ki quoi mewah, mewah, miwa miwa mewah, miwa mhm. maître miwa ancien karaté yi karaté kaay xam nañ ko et maître Miwa ba mu ñëwee moom ba muy ñëw dafa jàpp ne bu ñëwee Sénégal day jàngal nit ñi karaté ba mu ñëwee première fois mu dugg ci salle bi maa ngi woon ci salle bi gis ñëpp takk seen tenue noire sol ki kimono yu weex taal et kimono de qualité <laughs> mu jaaxle mu taxaw xool gars yi def échauffement ci kaw tapis bii di koy xaar yooyu may gis tout il a revu sa copie il a

yàlla sàmm ko sàmm euh, yàlla sàmm sàmm ay ay doomam njabootam gi yàlla defal ko leer fu mu ne yàlla yërëm ko ak euh, maître El Hadj Diagne nga xam ne ñoo doon moo doon adjoint nga xam ne ñoom ñoo ñu doon formé ba ñu doon passé sax seen noir deuxième dan troisième dan waaye yooyu yëpp moo ñu doon formé ku génne samuraay euh, maître El Hadj moo la moo la formé mm. donc ñooñu dañu leen di ñaanal yàlla yërëm leen jéggal leen. Et, et, et Nyonyo Jackson et Maître Nunez, ce sont des, des, des références. Et malheureusement, euh, xale yi duñ ci bénéficier et je pense que appel boobu c'est sama dernier mot pour que au moins euh, euh, man li ma ci xam ci ci ci ci ay tête fi ci karaté bi nga xamné ne ku ci nekk libre nga ñu wo leen def. cinquième dan yi ñuy passé ñu bëgg a ñu bind mémoire sotti seen xam-xam wallaay buñ ko defoon da nga gis ne euh, ñu bari dañ fi ñëw di jàng si parce que yaa yaa xam-xam baa ngi fii et nit bëgg nañ ko bëgg nañ ko eh. et malheureusement suñ ci taxawul discipline yi bees yi nga xam ne ay show show la daanaka dafa commencé jël kii xam ne léegi fo lépp li xam jàng dañ ko def fo ba nga xam ne l'essence des des arts marché wala yooyu amatul ay day fo rek lañ ko kiiwee euh, tout ça yooyu woo warul warul dem et dama leen di sant bu baax euh, li ngeen ma may ma génne ko xëy na dana des xëy na bindu ma livre waaw li wax rek li li duuf si nag bi xajul si cin bi donc maître on a été vraiment vraiment très heureux aujourd'hui ñu fekk ci ko fi ci école bi donc di la remercier bu baaxa baaxa baax parce que suñu temps bi ñu amoon lépp jeex maître mm. di la wax rek tàggatoo nga pare sax mais sa dernier mot ñu jaaral foofu tàggatoo waaw waaw gis nga ko de yëguma sax temps bi dem yëguma temps bi dem donc euh, euh den ñaanal rek di ñaanal parce que maa ngi doon maa ngi naay seetaan seen vidéo yi mais c'est bien ñu ngi leen di ñaanal ngeen ngeen di def lii parce que nii boo leen koy def da ngeen gis lu bari boo demee ci aikido bi da gis ay vraiment des des têtes des têtes pensantes boo demee ci kung fu des gens qui man xam naa leen ñoo xam ne man ku la ci wax man mii nga invité tey da nga koy xeeb parce que nii la fi nekkee xëy na man maa am sens tey <laughs> ngeen invité ma waaye boo leen ci gisoon keneen tamit noonu rek la. da ngeen ci jàngee dañ jàngal xale yi parce que jàng bi loolu rek la donc euh, karaté bi donc euh, c'est c'est un travail physique et travail physique bi bu ñu defee coup de pied may guéri jàkk sukki par exemple da ngay travail ñaari côté parce que da ngay travail côté gauche côté droit su boobaa yow yaa ngi développé sa côté bu faible par exemple c'est très difficile bu dee football lu ci bari benn tànk nga demee

da am ouverture da am day concentration mais parce que les euh, cellules nerveuses, qui sa xel nga de ne dañu nekkoon bi di di euh, fonctionner carrément da nga leen di yee yee gi nga di capacité de de de concentration ce temps de concentration c'est yu bëree maître nous vous remercions remercier bu voilà chers téléspectateurs c'était tout pour votre émission Safi Sport aujourd'hui et leen jox rendez-vous à Bénadion, Inch'Allah.